d'abord am na loo xam ne dama ci félicité père Birame Gningue li ma wax na suma agent bi sama manager sama papa parce que ba mu jàppee ba léegi du tey moom defe naa bëri bu ma ay millions xam nga ñëw dénk ko sama bopp mooy jàppale ba tey sama papa comme ni ma ko waxee te kenn du liggéey di bëgg a somé xam te expérience am na foo xam ne fa koy gisee fa koy gisee te ku gis combat bi ko nu mu xam ne am na lu mu ci joué comme suma combat ak moom. dañu daan taxaw ndax taxawul. tey ba may nekk Espagne sam dox la ma woo ne ma am na ñu may contacter pour gën a lii ni woo lii woo lii xam nga rek diggu mbër des fois xam nga mooy loolu daal. wala mu père ah. léegi mooy loolu man ay saa yi maa ngi ci taluma ay yeneen de mu ne ma non yow léegi amul problème gérer sa liggéey man li ma war a gérer fii naa ko gérer. am na tey loo xam ne comme li ma la wax moo ko mën. parce que man li ko muy yàlla daf may gënal. li bëri ko bi xam nga moom mu nekkoon ci démarche yooyu ba sori ak ñu mu doon waxtaanal xam nga ba tax na loolu dama ko ji félicité parce que li ma wax rek kenn bëggul liggéey di soobee ñun ba ñuy soog a bëri ci làmb année bi dañu daan bëri ay cinq combats tey bu ñu demee bay amee ñaar ñett comme ay ndaw lañ nekk ci waar bi liggéey kon sa sa combat mu taxaw na ñoo ngi ci avancé na ñoo ngi ci avancé na xanaa dañuy après rek. compliqué daal. mais lan lan lan waaw fekk ñu teew ñu dara xaaral waaw léegi dama dégg tëmbal sa sànq tam bala mu ne moom daxaatul bëriwaat ak yow est-ce que yow Modou Lo bu làmb doxatee ba booy laaj Balla di nga jot a bi. waaw li may wax lamb suñu liggéey la ñun ay gone lañ nekk duñ sax gone parce que ku def douze ans ci lamb xam nga nekkatoo ci xale quoi. Mm-hmm. dañu nekk ci waar yu liggéey. bu chaque instant ngay mën di nga mën da bay sa waar bu jeexee après nga ne ci leneen euh, tur na ci leneen dàq bu fekkee kenn lamb sama liggéey la. su may adversaire ku ma laamu boole rek damay bëri ak moo Modou Lo est-ce que